Audio Jungle. Audio Jungle. tëngéej lañ jógee tëngéej ñu ngi dëkk Daaru Salaam bari ñoo doon dem seeti jabaram ñëw ba fii nii moom moo def demi tuur na du ma fen quoi moo nañ dee ñoom yem si ñu jël la suulu ñu après mu gis sa pause moom moo def demi tuur fekk tamit chauffeur bi di ñëw tamit quoi feneen na ba sonn daal kaw li ma waral affaire bi moo ñëw ba fii nii def demi tour jakarta bi la ñoroon sama ñaari koy man moom gaañu naa mais sama gaañu demeewul lii mooy sama gaañu xoosu xoosu bët bi problème ki sa moom tànkam damm na ci maan dam bët bi toj na man lii laa si am non moom xam naa ne li mu def moom moo ko tegul fenn xaw ma dafa répondre man je ne sais pas doxal nañ beeg si ba fii teg ngi ba fii ba biir barñi yoon ñu dox ndaa ko dugg mais xam man lu ko tourné moom maa xamake benn at kenn ngi sama morom la moom 90 sëñ Mbacke yow liggéey a xëy jam moom sax mom ñoko fek fekk forcé ko nag nañ def xol suñu soxna li moo ñu si arrivé li nii la démé nak Audio Jungle. Audio Jungle.